waaw asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ziare yéen donc man la Ibrahima Mbaye nekk fii ci camp immigration bu Moscou gars yi dañ ma téye fii depuis janvier ñoo ngi ma tëj fii nii ci camp immigration bu Russie ci camp bi ci la fi ma nekk ni fi la fi la fi la sama baaraam bi daggee ba fi may wax ak yéen nii depuis janvier ñoo ma téye fii nanguñ ma yóbbu ma ñibbi man ak beneen sénégalais bu nekk fi aussi Malick donc voilà dañuy dañu doon dañu lancer vidéo bi rek pour. yéen ñi nga xamante ne yéen nekk Sénégal wala yéen ñu nekk ci diaspora bi ngir ngir yàlla ngeen jàppale ñu pour autorité sénégalais yi mën a jot ci lii quoi parce que lii métti na trop depuis janvier ñoo ngi fii ñoo ngi ñu tëj fii sama baaraam bi di wax may wax ak yéen ñi dafa dagg fii nii yaa ngi dégg 24 heures sur 24 dañuy tëj fii du ñu génn bàyyiwuñu ñu génn <coughs> yaa ngi dégg benn une heure de temps nga am pour génn guliyaat lekk yi ñu lay jox fii dara baaxu ci table baa ngi nii li lay jox fii dara baaxu ci. lekk yi ñu lay jox boo ko joxoon xaj sax du ko lekk donc voilà mooy loolu ñu ngi lancé appel Seydi gasama di lancé appel Alioune ñun ñi nga xamante ne yéen a nekkal droit de l'homme foofu noonu ci Sénégal ñun ñu nekk fii ay euh, man mi man ma nekk fii ak beneen sénégalais yaa ngi dégg mm, dañu soxla ngeen jàppale ñu ci camp immigration bu Russie Sakharova Giriev Giriev euh, fii ak Moscou mu ngi nekk 64 kilomètres ak Moscou ci camp bi lañ ñu tëj fii nii depuis janvier ñoo ngi fii mënu nanguwu ñu yóbbu ñu ñibbi parce que dafa am mafia bu bon bu nekk seen immigration bi fii nii boo amul xaalis wala boo amul avocat bu la mën a protéger pour di nga fi yàgg dañ la fiy bàyyi parce que plus que nga fi yàgg rek ñoom dañuy seen bénéfice la dañ ciy gañ état bi état da leen di fay xaalis occupé bi ñuy occupé étranger fii nii ñi ngeen gis nii ay yeneen étranger la ñuy Ouzbékistan ñi Kirghizistan la ñu dëkk donc voilà vidéo bi dama ko def juste rek pour wan len li nga xamantene mo fi nek gis ngeen ñi ni fi ni lañuy tej tëj immigré fii nii andi pour ñuy gulat gis ngeen ñi ñi ngeen di gis ni ay étranger lañ aussi amna nigérien amna congolais yaay ngi dégg euh, am na benn burundais aussi bu fi nek ki ngeen gis ni ab noir la mu ngi non fi ñu tej ñi ni ay gardien ay gardien ñoo nek fi ni dañu entourer affaire bi dañu entouré fi nga xamante ne fi la nit ñi di doxantoo dañ lay tëj fi ñu lay tëj espace bu ndaw la doo mën a génn pour booy doxantu gis nga benn une de temps nga am pour nekk ñu fii lañ garder nit yi étranger mu nekk maltraité di leen maltraité même porte doo comprendre quoi franchement sàcc ñu jaayi ñu dorog defuñu lu bon suñu papi suñu visa moo jeex ñu jàpp ñu ne dañ ñuy déporté dañuy yóbbu suñu dëkk andi ñu tëj ñu fii ba léegi ba fi may wax ak yow ni yóbbuwuñu ñoo ngi ñu garde fii nii di ñu jox lekk yi bon di ñu maltraité même porte xam am na ñoo xam ne am na africain yi fi nekk ñoo xamante ne tëj nañ leen fi ñaari at ñaari at ñu ngi fii ba léegi nii risques yi nanguwuñ leen bàyyi ñu ñibbi nanguwuñ leen yóbbu ñibbi nanguwuñ leen bàyyi ñu dem ci dëkk bi ñoo ngi leen tëj fii di leen maltraité donc maa ngi lancé appel sénégalais yépp africain yi yépp vidéo bi lillaahi wa rasuli jàllale leen ko ci internet bi ñu pour ñu ci mën a jot ñu jot ci dëkk bi amul droit de l'homme Russie lu leen neex la ñuy def lu leen neex la ñuy étranger la ñuy traité étranger fii xam nga dëkk bi respecté wuñu étranger rawatina nit ku ñuul nag voilà